ko bëggoon def président mu moom lépp tey lépp yàlla defee mbir mi ne yow nga mën a compter ci moom mu nekk premier ministre mais da ngay xam lan nga am nga téye ko fukki ju fukki loxo ak juróom-ñaar ah, c'est une question de raison naturelle quoi Ben... j'avais dit que dañoo war a wàññi les pouvoirs du président yokkal ko le premier ministre pour équilibrer au sein de l'exécutif instant yi nii rôle bu lu mu sa stature eh bien voilà celui qui élu une liste de titulaires de députés nga bëgg ko nga bañ voilà quelqu'un qui est dem len en en jours ñu génn battre campagne ñëpp dégg voilà quelqu'un qui a xam dañ ko il a résisté entraîné ay nit pour lui changer même ce ci Euh, tëj sama bët sax su ma ci tëjee sama bët sama xel di ko gis te man soxoruma vis-à-vis de moom ni vis-à-vis de personne nee naa la tey laa ko gën a yéen mu nekk président de la république waxuma naa nag euh, xanaa président bu toog ñetti weer cent jours nga bëgg mu wax ci waxu mandat xanaa bëgg coowal journaliste kese